salaamaaleykum wa rahmatulah taala barke allah ji la xam tey dama ne fala nga fala nga fala ba day ki xam ne mooy Samb Oustaz Modou Fall Adamo vidéo bi nag ku yàkkamti man ngaa dem ndax vidéo bi dal la vidéo bi tey la ah, Samb dafa ujoo Adamo di ko ñaan njekk pour mu bàyyi Oustaz Modou Fall mi nga xam ne ni da koy attaqué xamal ko yéen a bokk li ngeen gëm bokk tarixa ak nga ruus ko ngir li muy wax ci yàlla ak yonente beeg saar yooyu pour mu jéggal ko aadamoo génn na wax ne moom ci jëmmam jéggal na ko ngir sàmbub oustaz Modou Fall nag tontu na dinaa leen tegal audio bi ngeen déglu li nga xam ne moom oustaz Modou Fall moom la tontu ki nga xam ne nii mooy sàmbub oustaz Modou nee na moom demut sa sàmbub di ko ñaan loo njekk pour ci aadamoo pour mu bàyyi ko attaqué wala mu jéggal ko wiru baa ngi nii maa leen koy tegal déglu leen audio bi bu kenn yàkkamti salaamaaleykum Sam noo def maa ngi lay ziar maa ngi la doon essayé woo sax mais jotuma la yaa ngi ci jàmm dañ ma envoyé benn vidéo boo xam ne yaa ngi ci wax ak euh, ki may bañ a tudd turam rek te mu nekk Italie di saaga mel ni da wax ak moom naan ko bàyyil Modou Fall parce que Modou Fall jullit la ngay jullit te boo ko am na noo koy waxee ñi xamul mën nañoo jàpp ni man dama wéeru ci yow pour yow nga wax ak moom te kooku man su ma naree wut intermédiaire sama digganteeg moom wala intervention li may ñaan sunu borom mooy yàlla bu ma sëñ Babacar si boole ci njabootam loolu man su ma demee ba nar koo def maanaam bu ma demee ba nar wut intermédiaire sama digganteeg moom wala may wut wallu ci moom li may ñaan sunu boroom def ma ko mooy sëñ kër si yàlla bu ma boole ci njabootam yàlla naa bokk ci ñi gën a yées ci sama askan loolu duma ko mës a def ci àddina xam naa yow nag bi nga koy def euh, gis nga ni rek sama xarit nga waaye am na ñoo xam ne duñ ko gisee noonu beneen bi ci desit moom ci boppam loolu lay wane te man sama àddina képp koo xam ne taxaw naa pour guerre ak yow ci ci lu mën a doon man bu ma naree reculer ci sama àddina yal na ma yàlla toroxal ba ma gën a yées ci samay moroom man dama ko sib ba duma tudd turam nawlawuma ko te moom ci conscience boppam xam na ni man faalewuma ko lim mënal nit mooy saaga mbaa génnee say audio ak say vidéo benn bi mu ci am muy saaga mi ngi koy def yëgalu ko sama yaram bu amoon sama audio mbaa sama vidéo ca yàq yu njëkk ya la may yàq mais yàlla suturaal na ma nag duma ko bàkkoo ba amul ci man lu mu mën a génnee lim dese mooy saaga reculé wu ma ci bu ma waree wax lu jëm ci moom tey laa ko gën a mën a wax te delluwuma ci gannaaw benn yoon te amul mbindeef nag mu yàlla bind muy dox ci kaw suuf boo xam ni cëralee naa la may la nga may wax dara ci sama diggante moom yow nag fonk naa la respecté naa la lii rek laa ne woon naa la ko wax maa ngi jéggalu bu baax Samb merci. salaamaaleykum wa rahmatulah taala barke allah ji la xam tey dama ne fala nga fala nga ba day ki xam ne mooy Samb Oustaz Modou Fall Adamo vidéo bi nag ku yàkkamti mën ngaa dem ndax vidéo bi dal la vidéo bi tey la ah, Samb dafa ujoo Adamo di ko ñaan njekk pour mu bàyyi oustaz Modou Fall mi nga xam ne ni da koy attaqué xamal ko yéen a bokk li ngeen gëm bokk tarixa ak nga rus ko ngir li muy wax ci yàlla ak yonente beeg saar yooyu pour mu jégal ko aadamoo génn na wax ne moom ci jëmmam jégal na ko ngir sàmbub oustaz Modou Fall nag tontu na dinaa leen tegal audio bi ngeen déglu li nga xam ne moom oustaz Modou Fall moom la tontu ki nga xam ne nii mooy sàmbub oustaz Modou nee na moom demut sa sàmbub di ko ñaanloo njëkk pour ci aadamu pour mu bàyyi ko attaqué wala mu jégal ko wiru baa ngi nii maa leen koy tegal déglu leen audio bi bu kenn yàkkamti. salaamaaleykum Sam noo def maa ngi lay ziar maa ngi la doon sax mais jotuma la yaa ngi ci jàmm dañ ma envoyé benn vidéo boo xam ne yaa ngi ci wax ak euh, ki may bañ a tudd turam rek te mu nekk Italie di saaga. mel ni da wax ak moom naan ko bàyyil du Fall parce que Modou Fall jullit la ngay jullit te boo ko am na noo koy waxee ñi xamul mën nañoo jàpp ni man dama wéeru ci yow pour yow nga wax ak moom te kooku man su ma naree wut intermédiaire sama digganteeg moom wala intervention li may ñaan sunu borom mooy yàlla bu ma sëñ Babacar si boole ci njabootam loolu man su ma demee ba nar koo def. maanaam bu ma demee ba nar wut intermédiaire sama digganteek moom wala may wut wallu ci moom li may ñaan sunu boroom def ma ko mooy sëñ kër Si yàlla bu ma boole ci njabootam yàlla yàlla naa bokk ci ñi gën a yées ci sama askan loolu duma ko mës a def ci àddina xam naa yow nag bi nga koy def euh, gis nga ni rek sama xarit nga waaye am na ñoo xam ne duñ ko gisee noonu beneen bi ci desit moom ci boppam loolu lay wane te man sama àddina képp koo xam ne taxaw naa pour guerre ak yow ci ci lu mën a doon man bu ma naree reculer ci sama àddina yàlla na ma yàlla toroxal ba ma gën a yées ci samay moroom man dama ko sib ba duma tudd turam nawlawuma ko te moom ci conscience boppam xam na ni man faalewu ma ko lim mënal nit mooy saaga mbaa génnee say audio ak say vidéo benn bi mu ci am muy saaga mi ngi koy def yëgalu ko sama yaram bu amoon sama audio mbaa sama vidéo ca yàq yu njëkk ya la may yàq mais yàlla suturaal na ma nag du ma ko bàkkoo ba amul ci man lu mu mën a génnee lim dese mooy saaga rékiliwu ma ci bu ma waree wax lu jëm ci moom tey laa ko gën a mën a wax delluwuma ci gannaaw benn yoon te amul mbindeef nag mu yàlla bind muy dox ci kaw suuf boo xam ni cëralee naa la may la nga may wax dara ci sama digganteek moom yow nag fonk naa la respecté naa la lii rek laa ne woon naa la ko wax maa ngi jéggalu bu baax Sam merci